waaw dellusiwaat nañ fii si Elmo Show ki ñu doon xaar egg si na lu fa lu fa naka waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Ah, naka koor gi. koor gi ñu ngi ci kawam rek kon ni nga ko daan defee rek. waaw gisoo nii de man mii gisoo nii gisoo xam naa fii tey dina xaw a jaaxal gars yi parce que gis nga mais koor gi foog ñu seelal ko tamit looloo tax ñi ñu féexal tuuti ñëw fii yëmbal yaa ma gën a xam. waaw surtout loolu noonu ah ndax yëmbal dëkkuwaay la boo xamante ni dëkkuwaay bu am solo la te dafa am ay jeunes talent yoo xamante ni dañoo nekk ci benn kon genre label laa ko mën a tuddee quoi boo xamante ni gars yi dañuy tëgg ay paat yi di def lépp quoi. te instant bi nii ñun dañoo am deal le 7 juillet bëgg gars yëpp teew si ah ñëw jàppale ñu encouragé xam ndax ñun dañoo nekk ay jeunes yoo xamante dañoo bëgg dañoo am su suñu avenir daa am luñ ci luñ ciy séentu quoi. boulot bi nii jàpp ma loo xamante ni euh, day continuer quoi continuer wul ndax loo xam ne passe temps la rek te dañ ko bëgg a job mu pare après ku nekk dem quoi. waxte di woo gars yëpp na rendez-vous le 7 juillet au centre Poule Blanc de Yëmbal. voilà tegal foofu sa loxo mu ñëw le sud 7 juillet boobu nag la ñuy ñëw dugg ne moom defe naa looloo tax tey ñu dugg ci débat bi parce que la 7 juillet lañ bëgg a waxtaanee loolu ñu mën nga wax ci le 7 juillet. le 7 juillet daal li may wax euh, gars yi mooy lan dama bëgg daal ñu teew teewin boo xamante ni euh, ku fa ñëw rek doo ko rëccu quoi ndax le centre Poule dinañ fa def loo xamante ni nit musu ko fa def tim musu ko fa def. te boo après la ñuy comprendre quoi di leen wax nag nag centre poullan di dégg naa gars yi la ñuy wax quoi naan ay dafa dafa lëndëm dafa yoona amul dara lu fa xamante ni euh, dina fa am quoi mais jàpp naa ne moom sécurité bi dina doy te ku fa ñëw incha allahu rabbi euh, di nga gis loo xamante ni mosoo ko faa gis te incha allahu rabbi dinañ xam ne jeune jeunes yi nekk yëmbal fii nii ñu ngi def loo xamante ni après gars yi dinañ ko mën a comprendre quoi noonu la fa demee rafet na rafet na rafet na rafet na waa léegi billets yi ak prévente yeeg yooyu noonu léegi naka la fa mën a demee. Euh, prévente yi moom deux mille la jour ji mille salon 50000 VIP 5000 quoi noonu lañ ko defee te ku fa ñëw moom incha allah rabi ah dina mel ne pasa pasa bi ñuy bi gars yi di bombage quoi te gëm naa ne euh, bu Omzo ñëwee rek ak bala ak yeneen invitation yi ci nekk dinañ kontaan daal dinañ kontaan. waaw waaw ñu ñëw foofu tamit parce que kii ko nar a animé tamit dem ñu garaaw lañ ndax dégg naa ñu naan DJ Ema la ak DJ euh, MC Omzo Omzo bokk voilà DJ Omzo te ñooñu dégg naa tamit mooy loolu tamit ay animateur yu mën seen liggéey lañ loo ñu mën a wax si DJ euh, Omzo moom mun naa la ci wax dara mooy lan jeune la boo xamante ni euh, mu ngi biir yëmbal te bëgg na jàppale ay ay ndaw ay ndawam quoi ñoo xamante ni ay rakam lañ. te ñun jàpp nañ ne nii kuy ñëw di toog ak yow di waxtaan ak yow soo amee sa événement war nga ko mën a jox quoi ndax man jàpp naa ne DJ nekk ci rajo yi ëppale wuñ ko dara ndax man xam naa ne su nekkoon ci rajo dina def loo xamante ni ñoom ñu nekk ci rajo yi sax duñ ko def e maanaam tamit waxi nopp na ku ci nekk boo amee événement boo amee euh, programme du la yàqal sa liggéey ndax ñoom dañuy dem liggéey ba pare ñëw doog a tëgg seen événement dafa ko mu réussir quoi te jàpp naa ne euh, ku ñëw la 7 juillet di nga gis loo xamante ni euh, Omzo dina fa teg euh, loo xamante ni kenn dootu ko kenn mosu koo teg ci paat yi te kenn dootu ko tegati ci paat ku dul ñun te la 7 juillet la ñëpp di comprendre quoi di si woo ñëpp nag euh, waa Yëmbala waa Géejawaay waa Pikine Thiaroye bàyyi ñu kenn surtout Malika imposé gars yi moom suñuy gars yu baax lañu ko surtout ak waa kii nu mu di waa Kër Massar gars yëpp daal bàyyi wuñu kenn tim yëpp ñu ngi leen di woo di leen jox rendez-vous le 7 juillet au centre polyvalent de Yeumbeul ku ko xamul euh, ci centre polyvalent de Yeumbeul boo nee terrain central euh, boo wàccee studio Yeumbeul rek foo laajte terrain central incha allah rabi gars yi dinañ la teg ci cote quoi te dama bëgg gars yi def ñaf def ci code lu fu mooy wax ak yéen lu fu dictionnaire bi quoi. léegi contact yi pour pour mën a jot euh, si billet yi naka ngay def. numéro téléphone da ngay def 78 154 71 25 quoi. Euh, beneen numéro bi si topp euh, mu ngi nekk 78 709 44 0 03 quoi waaw 77 700 709 44 03 quoi. waa kon mbokk yi ñoo ko déggandoo léegi gaaw leen gaaw numéro yaa ngi noonu woote leen jël seen PV jël seen i billet le 7 juillet ngeen dem. toj foofu noonu yéen a ma gën a xam du du doon luy yomb nag parce que le 7 juillet la ñu wax ñu ngi ci koor nag es bi day dañuy sellal mais bu ñu génnee koor gi dañ xam ni lépp dëgg la waaw kon ñu ngi leen di jox di daje ba beneen émission incha allah rabi fii ci Elmo TV euh, di leen jox jox daje nag ay facettes yeneen facettes yu bees euh, léegi di euh, pour pour pour am accès pour Elmo TV ngay def 3w point elmotv point com di ngeen dugg ngeen mën a gis am na ay vidéo yu graaw ñuy dugal ci biir dinañ def ay tournage am nañ ay tournage vidéo ku bëgg a tamit tourner euh, def ay tournage wala ngay def euh, comment dirais nga am ay cérémonie ay événement léegi boo ñu oowee dañuy contacter suñu numéro bi 77 700 euh, 709 44 03 709 44 03 boo ko defee di ñu mën a accéder bu dee cérémonie bu mu mënti doon dinañ ñëw filmer na ko defaral la ko ba mu baax yaa ma gën a xam Elmo yi ci kaw ca kanam.